mais c'est c'est c'est désolant c'est désolant pourquoi c'est désolant parce que moi je connais euh, peut-être euh, le professeur de français connaît Lamballe qui est un promo qui est un professeur de lettres classiques donc pour devenir un professeur de lettres modernes parce que euh, fac lettres classiques lettres modernes yéen ñëpp yéen a defandoo concours bi. Mhm. après dem école normale génn. Euh, je le connais bien le professeur de philosophie ça veut dire si on ou à moins de quarante cinq jours des Sénégalais des élèves on les prive de professeurs on se pose la question maintenant est-ce que si c'était les preneur de décision si c'était leur propre enfant est-ce qu'ils vont faire ça gis nga la chose publique n'est pas la chose privée et malheureusement au Sénégal on confond la chose publique et la chose privée. Okay. et souvent dañu lay jox la chose publique nga yaakaar ne c'est une chose privée da ngay fàttali ne sax ni lii c'est une chose publique da ngay ne maire biy jaay gerte caaf fee ne këriñ bi mu jëndee fanweer génnee nañ ci ñaar dërëm versé ko da ngay jaar ne maire biy jaay fee ne mango bi mu jëndee mango peut-être bi ñu koy transporté ci euh, ci kii bi ci litre d'essence bi ko transporté jël nañ ci quinze francs versé ko. da ngay fàttali ne maire bi nga xam ne mu nga fële ne di jaay càkkri ci dugub bi mu jënd jël nañ ci 10 francs versé ko. Mhm. dajale ko ba mu baax yow nga jàng ci. Mhm. bu mun a nekk professeur. ci say biir collègue ñu jël la ne la yaay proviseur ci say biir collègue peut-être ñu jël la ne la yaay directeur de l'enseignement ainsi de suite c'est la chose publique dañu la koo dénk et la chose dañu koy waxtaane mais doo jël ay décisions xam ne c'est par rapport à toi-même non doyen wax na ko léegi am na loo xam ne c'est une gestion interne man su ma gisee ni lii am na la maire façon de sa de de de de de gérer ça mooy ma gérer ko ba examen yi jàll ba école tëj. Mhm. les vacances su may am lu may régler ma régler ko. qui le plus peut le moins su ma mënee gérer six mois mu dese ma un mois wala ma gérer sept mois mu dese ma un mois war ma mën a gérer mm. et ça loolu moo lay won moo moo lay won tout simplement le caractère subjectif de nos décisions une décision ne doit pas être subjective une décision une décision doit être objective et malheureusement à l'heure où nous sommes c'est pas bon mais aussi cela montre une volonté un acharnement contre les enseignants ñaata enseignants lañ ci jàpp tey ku mel ne Abdoulaye Thomas Faye ses élèves finalement bu ñu naree dem examen au lycée de Diourbel qui est emprisonné depuis plus de deux mois kan wala di jàngal Sénégal yi kenn waxu ci parce que xam nga lan mooy problème bi tey Sénégal da ngeen di xeex pour mbir boo xam ne pour réew mi yëpp la pour mu jëriñ réew mi yëpp la Mia de Marie de Maria de toog fële Birama Kane toog ah man de comme excès gu ci man garaawul quoi. waaw ah. jour bi excès ci yow nag day soog a xam ne ndekete affaire bi métti na. Mm-hmm. et tôt ou tard man maa la ko wax ñun ñëpp dina egsi ci ñun te nag balaa ñoo egsi ci ñun dañoo war a arrêter ne def leen ndànk kaay leen nii nii lañ ko war a gérer nii nii ko war a gérer la politique n'a rien à voir avec l'éducation. ñu dissocier ko. ñu dissocier ko mais aussi Surtout. ça ne veut pas dire que je suis enseignant et je ne fais pas de la politique. man je suis enseignant. Mm-hmm. de formation et j'ai fait de la politique. mais ça n'a rien à avec ni nga xam ne noonu lay doxale mm-hmm. loolu la war a. dissocier mais état malheureusement du dissocier parce que képp koo xam ne da ngaa bokk parti pastef surtout parti pastef da lay ba pare jël la làq la jant bi pourquoi parce que tu es un enseignant mais un enseignant il ne peut professer que là où il enseigne et là où il enseigne heureusement pour lui il a ses partenaires ses partenaires c'est qui c'est des électeurs est-ce que mën nga dissocier l'élève qui fait la terminale et son âge mhm. l'élève qui fait la à 18 ans au moins 19 mais maintenant kooku bu la gëmee par rapport ak li ñu koy professé li ñu koy jox lan la ci nit mën est-ce que Macky Sall li ko yàlla jox nii lan la ci nit mën est-ce que mën nga ne tey tey tey day fiy jógee nekkul le président de la République mm-hmm. donc le professeur qui est là qui convaincre qui, qui parvient à convaincre ses élèves qui épouse sa philosophie lan nga ci mën mais kooku boo ko singalee mooy yaa ngi yàq la système éducatif encore une fois de plus d il faut ñu faire très par rapport à ça